télévision Futur Média mbokk yi dalee nag jàmm ci li ci penc mi euh, ma ànd ci ak euh, soxna Ngone Ngom Ngone maa ngi lay nuyu. Pape di la fay nuyu mboolem téléspectateur yi ñu jàkkaar lool nañu ko jàpp xibaar yi ñu xëyandool moo koy yaatal moom soxna Ngoné dinañu wax lu jëm euh, ci euh, doxu ñaxtu bi waa mouvement Y'en a marre amoon yéene te ñu gàntaloon ko te terewul ñu amal ko ba ñu jàpp ñenn ci ñoom dinañ ci ànd ak Chérif Dia a ñu demaloon ca place bu obélisque euh, dinañ dikk ak ñun ci xew xew fitna yi am tey ci dëkk bi ci wàllu fitna ba tey ñu gis ni campagne électorale bi ñaareelu ayu bës bi metti na lool wax ji ji yemul ci ñaaw rek jëf ji rax na ci ñaaw euh, ci mbooleem candidat yi ñu ngi jëflante ci wàllu ngànnaay euh, ponk la bu ñuy dikk tam euh, leneen ci wàllu xibaar ñeel daje bu mu doon seq ak taskatu xibaar yi moom Ousmane Ngom jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi xam ne ni la xew ca ngéeñeen ak cortège bu Abdoulaye Wade loolee ndëgg sërëx la gu ñu laaloon candidat bu fal enquête ba ca war nag ne dinañ ko ci ubbi eh, tàggat yaram dinañ ci dikk askan wi nees tuut incha allah eh, ci kanam mbokki ñu dikk ak ci yaatalu ko xibaaru li ci penc mi. soxna Ngone mu bàyyi la ak 10 nekk ci téléphone bi. Papa jërëjëf comme ni nga ko waxee di sa Prera mi ngi ci euh, téléphone bi gannaaw euh, ndaje moo xamante ni euh, waa Y'en a marre jàppoon nañu ko te ji ñu mujj ko tere tax nag coow kon am seen digg ak takk der yi ngir xam fu yëf yi toll ak na mu tëddee boobaak léegi ni nga ko waxee di saa mu ngi ci ligne bi gannaaw ba ñu la nuyoo lan mooy situation bi. waaw Ngoné euh, jërëjëf situation bi nag fi mu toll nii fii ci place de l'Obélisque policier yaa ngi ko wër euh, maanaam euh, GMI yi takk der yi fi mu ne nii lépp jeex na nag manifestation bi tas na waaye Y'en a marre am na ñaar ñu ci jàpp ñu ñuy wax ku ci mel ni kilifa ak ku ci mel ni Simon jàpp nañ leen. waaye tamit am na yeneen ñeenti nit yu nga xam ne ne ay jeunes lañu ci waa ci waa Y'en a marre lañu jàpp ne ci lañu bokk jàppoon nañ leen tamit dugal leen ci benn benn char de combat il y a cinq minutes après cinq minutes lañ leen bàyyi yóbbu leen nag kenn xamul nag euh, fi ñu leen jëmee mais fi mu toll nii euh, euh, daanaka dara dara dara amatul fii ci place de l'Obélisque sinon policiers yi ñoo fi nekk ak journalistes yi di xaar ndax ceeb bis du am dara leneen lu xewaat ngoonee yow lay waxal foofu. Euh, ci wàllu woowu euh, kon euh, boobaak léegi laataa yëf yi di jeex nee nga dara dara nekku fi naka la mbir yi demee woon diggante takk der yeeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa teewoon. waaw mbir yi mën nañu jàpp ne euh, bi ñu fi jore teew tàngoon noonu loolu la ah, muy euh, place de l'Obélisque te yemuloon rek ci place de daanaka boo jógee Grand Dakar ba yegg Médina amul fenn foo xam ne romb nañ fa te amul ay pneu yu ñu taal ay policiers yu daxante ak ay ay ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen maanaam ay jeunes euh, vraiment bon ñenn ñi jot nañ leen dóor ñenn ñi jot nañu rëcc vraiment ñenn ñi tamit vraiment. nemmeeku nañu ci tàng bu bari nag vraiment ci ci yi ci jeunes xam ne waroon nañu foofu ci place de l'Obélisque ak mais vraiment ngoone lu ñu mën jàpp nag mooy vraiment tàngoon na lool lool lool lool xam ñu nag fekk euh, vingt heures wala fekk euh, plus tard lan la lan mbir ñuy demee euh, mais daal ñu taxaw di xaar ba xam lu ci mënta am rek dinañ leen ko yeggee incha allah. ci jàpp Simon boobu ak kilifa yan xibaar nga ci mujjeem waxtu yi. fi mu nii bu bu ñu bu ñu bu ñu tataan ci xabaar yi ñu mujj tataan fi mu toll nii xa dañ leen yóbbu ñeneen ñu ngi naan Sall lañ leen yóbbu ñenn ñu naan Rebeuss lañ yóbbu lañ leen yóbbu mais xamuñu exactement fan lañ leen yóbbu. donc euh, journaliste yi ñu ngi taxaw ku nekk euh, mu ngi jëm ut euh, xibaar boo nga xam ne vraiment moo gën a wóor waaye fi mu toll vraiment amuñu benn xibaar bu leer boo xam ne que mën nañu wax Simon ak kilifa fii lañ leen yóbbu fi toll ni ngoonee. Bissa Préra ñu koy euh, gërëm keneen ku nekkoon si terrain bi Chérif Dia euh, dina fi teew moom fii ci plateau bi Pape euh, indi ay leeral ak it ay image ci lool nga xamante ni ma nga woon ci place de l'obélisque lu jëm ci wàllu xibaar ba tey ji ca la xewoon fële ca Ngéyeen dañ ci daal di dellu si Pape ni ko séenee muy nañ ko waxee woon morso yu xonq yi taroon na foofu ci bi ñuy tertu njiitu réew mi président sortant di kon euh, maître Abdoulaye Wade ak loolu nga xamante ni moom moo di kon cortège am booba euh, ñu attaqué woon ba daal am kon witru wotoom yoo xamante ni euh, toj na image yaa ngoog dinañu ko gën a yaatal leneen ci wàllu xibaar mouvement M23 moom nee na dana dellu ca place image yi niñ ko waxee mi ngi noonu gis ngeen woto bi kon 4 kat bi noonu nañu ko tojee ci ginnaaw ci askan wi taxaw ku yorul morso bu xonk yaa ngi ko musóoroo wala dend ak ku ko yor mu mel bi foofa ca Nguéniène neexul woon ci maître Abdoulaye mangook ngay ñeen euh, di kon fa nga xamante ni fa la Ousmane Tanor Dieng baax ni la ñu tertoo maître Abdoulaye mouvement M23 moom ni yàlla juma ji euh, dana dellu ca place de l'indépendance ngir euh, yeneen i manifestation dogal boobu nag ñu ko jël tey ji ci suba siiwal ko gannaaw janoo bu ñu seq ak waaye taskatu xibaar yi ci loolu nag yëkkati nañ seen i kàddu di sakku ci ki jiite Sénat bi yoon ñu daal di respecté charte kon wi lal élection yi te bàyyi leen ñu manifester docteur Cheikh Tidiane Dièye bokk ci euh, M23 Ah, du ñàkk ci kàllaama nasaraan mu kon indi ci ay euh, leeral sénégalais ya nekkee ca Espagne ñoom jëriñ di ñu dénk wàllu élection yi euh, moom la ñuy waxal di ko xam la ni foofu yëf ya mel na ni sotteegul ndax ci jongante euh, yëf a mujjoon am lu toll ci juróom-ñaar fukki bureau de vote la ñu fa taxawaloon bi yoon li nga xamante nii moom moo di kon fukk ak juróom-benn bureau de vote mel na ni moom moo pare fukk ak juróom-ñaari bureau de vote te gis nañu ni loola du saafara mbir mi ba ñu bëgg nag ku ci taxaw président fédération association ak organisation sociale ya nekkee foofa ca Espagne ëmb doomi Sénégal euh, moom moo ci yàddu tiré attention ci ñi nga xamante ni ñooy autorité sénégalaise yi ci njaaxum bi nga xamante ni gis nañ ko ci li nga dinamee li mu carte électorale bu bu Sénégal ndax gis na ni Espagne fi mu nekk nii am na ci juróom-ñaar fukki bureau de vote maanaam ci français soixante-dix bureau de vote mais ci carte électorale bu ñu ko xayma fukk ak juróom-ñaar rek a ci nekk loolu nag bon xaw ma erreur la volontaire wala involontaire mais bi nga xamante ne daan daan daan jokkoon nañu ak suñu autorité consulaire nee nañu défaillance technique la waaye du am benn rëq-rëq ci élection bi mais ñun